duñ na ko tasal nga dem uti beneen borom kër mais jigéen bu feebar ñu ne borom këram dama takki keneen su mënoon am doom dama nga takk keneen su demee ba ñoom ñoom waa kër gi sax wala tey ay ñeneen ñu la jege bu ñu gisee ni kii kat neexuñu wala melul nii wala melul na ñu ne la indil keneen nga teg ko fi ndax mu faj ko d'accord soo so ma jox la kàddu gi su ci paree daal di tourner ci Gabriel ñi nga xam ne ñu ñoo bokk kër yi xam naa dañuy xaar rek parce que saa yi mi ngi bëgg a dee waxam boo léegi de Diop am nga am nga bëgg xam man bi ñu damay jógee ci soo su ma jógee ci soo dem ci Gabriel après ma jox ñaari Mouhamed yi parce que am na solo non da ñëw léegi ci biir nga bokk yow itam bi ñu bi ñu defee tour de plateau bi dafa wane un peu naka la suñu société mel uh-huh. mais heureusement yaa Sayda xaw na de débat bi parce que xam nga bu fekkee ne dañuy waxtaan ci li nga xamante ni suñu borom daf koo daganal munoo lu dul nangu wante booy nangu da nga koy booleeg nangum dëgg ndax la polygamie dañ ko autorisé góoru jullit mais bañ ko ko autorisé dama dégg yaa saydaa di wax mais heureusement parce que dama ko naroon ni ko yaa saydaa wante bi danga koo fàtte dafa wax lu am solo ci wàllu takk bi jox programme bi fàtte wante bi yàlla naan wante soo leen ko mënul ngeen yem ci benn xamoon na ne tey di nga gis ay góor yuy takk ñeenti jabar te mënuñu ko li mu taxoon mu naan benn mooy ñoom pour ñoom la sax parfois nga wax ci polygamie ñu yaakaar ne ku jigéen ki moo tax ngay wax mais di nga gis góor boo xamante ni am na ñeenti jabar à part tiitaru yor naa ñeenti soxna amu ci jàmm ci fitna la nekk te fitna boobu boo xoolee moo koy teg boppam pour quoi il faut ñu comprendre benn affaire mooy góor am na droit nekk monogame am na droit nekk polygame yàlla waxul ne góor boo amee benn jabar teg la dara dafa ne takk leen soxna nga am benn jabar di ci jaamu yàlla moo gën nga am ñeenti jabar te mu biir la ne boo génnee àdduna àtte bi ñu lay àtte dina metti parce que aujourd'hui yaa Sayda ak oustaz Mohamed ñi ngi dégg condition wu yàlla dafa graaw daf la autorisé ba pare tegal la ci ay condition te xam nga condition wu yàlla li ci graaw mooy boo ci wàcc gis ko moom mooy ki nga xam ne bu ne la bàyyil lam la wax bàyyil boo ko bàyyiwul di nga ci gis conséquence pourtant di nga gis tey góor bu am soxnaam aawam amul sax calculu takk jabar ay nit ñëw ni ko takkal nañ la soxna wala danga demal takki et pourtant mënu ko te mën-mën bi condition la nga am ay soxna man dama daan gis góor kilifa yoo xam ne soo dañ daan am ñeenti jabar seen kër du yëngu pour pourquoi tey dañ leen di nangul kilifteef bi ngeen yàgg woote ci plateau yi bu ñu koy wax dañ leen koy nangul bu ñu waxtaanee polygamie dañ leen di jël yéen kilifa yi ndax góor mooy kilifa këram bu këram amee jàmm moom la bu këram yëngoo moom la je m'explique bu fekkee ne da ngaa yor ñeenti soxna defee ko ni la ko yàlla sante du ñàkk de ndax nee nañ seytaane lu baax rek la bëgg dina ñëw dugg ci sa biir kër lëmbe ko mais boo matee kilifa dinga xam nan ngay gérer say ñeenti soxna mais dafa am boroom kër yoo xam ne ñooy sol mbubbu seytaan bi di dox ci biir néegu aawo ñaareel ñetteel kër gi di tàkk mu toog naan la kër balaa moo ne xumb ah. dégg naa ko ci plateau bi léegi ah. kër waxuma ci aw ay de. papa yaa ne góor dëgg kër balaa moo nee xumb. waxuma xumb ci aw ay de man tudduma tur. waxuma xumb ci aw ay tudduma tur. tudduma tur. këru murid dina xumb te doo fa dégg coow. baal këru baal këru murid papa ñun ay taalibe lañ. kenn du saaga. soo soo xam naa ko kii waxuma aw ay de. xam nga kii xumbam lan la xam nga kii xumbam lan la. kër gi di toj. mu toog de xoolal teg la tànkam nii. waxuma loolu teg la tànkam nii. waxuma loolu naan maay seen kilifa mais mais wallaay waxuma gis nga bu ma la interpellé foofu xam nga pour la dañuy woote ci sensu responsabilité parce que parce que kër papa ni nga teglee sa tànk yi nii yow bu sa kër doon toj moo lay def mbégte waxuma aw ay yow mi yow mi xale yi di la xëccoo bu kii yëkkatee koppate bi kay jël drap bi papa bàyyi ma <laughs> xam nga xam nga li graaw ah, mooy bakkan de jàmm la bëgg wax xam nga ah, mais dëgg la papa maintenant dëgg la faa dëgg la dëgg la ah, dëgg la mooy kii jël koppati bi kii indi drap bi. waaw kii toog fii kee toog fee nga uuf keneen kii. voilà xam nga xam nga Sophie. Sophie loolu sax bañuñu ah, ko. dégg nga dégg nga dégg nga dégg nga. xam nga xam nga loolu sax bañuñu ko. Ah, mais nga nekk boroom kër toog sa kër. mi ngi yaay boppam na bañuñu ko toog sa kër mais lu ah, neex ku ko bañ. boo amee say soxna ñu juboo alhamdulilah. waaw ndax yàlla da leen ko may seeni soxna boo leen amee ba ñeenti soxna. Ah. kër gi tàkkul dama ne alhamdulilah. waaw xam nga ñu lu ñuy bañ. Ah. nga yor ñeenti soxna. doo am jàmm àdduna doo am jàmm alaaxira xam nga luy jàmm alaaxira wax naa ko chaque jour kilifa bu ne njabootam mooy héritage am ñi ngeen fi lim ci suñu kilifa yi bi ñu demee ay njaboot yu barkeel la am bàyyi leen ñu fi ñu leen di topp di topp ci seeni waaw xam nga loolu leen ko may une éducation ku ci wekkul ci éducation simple yaa ngi ko teg ci alxuraan wala leneen loo jàng mais pour nga mën a am temps wu éduquer say say doom Sophie il faudra nga segg bu baax ni ngay doxalee et notons encore une fois que le prophète a été monogame avant muy nekk polygame ma expliqué wu balaa moo fas yeneen soxna yaa Xadija dafa génn àdduna ba pare mhm. moom ba muy nekk ak moom monogame la woon takkul woon benn soxna ci bi muy nekk yaa Khadija dëgg loolu dëgg oustaz ba mu génnee àdduna nag ci la commencé et pourtant il était le plus beau des hommes waaw oui yàlla mayoon nag ko bu ko neexoon mu def ko te dara du ko ci fekk lu mu def lu ne alxuraan wàcc seedeel ko ko ah waa xam nga man dama jàpp lan moo tax defu ko ci hmm. sama xel bu gàtt hmm. loolu sama fit la sax ndax aw ma sañ-sañu sax di wax le pourquoi du prophète bàyyi ko lan moo tax so bi defu damaa jàpp ne dafa daj ci jigéen bu ko mën mënoon aawo ñaareel ñetteel ñeenteel féete ko ci boor bu nekk mu yam ci moom képp ba mu génn àdduna mu commencé te sax takk yi waa déggoo ma takk yi fa laay daanele moom mooy ki nga xamante ni soxna su mu takk soo waa mooy ki nga waa papa waa mais non non waa non non non non soo danga bëgg a dugg ci jàng voilà. mu ne naa ko laaji pexe moom Benoît. kii xam nga duma ko laaji pexe. waaw mais mais mais yaakaaru àdduna ah. mais ma rek dimbale ma rek waaw ma xam nga xam nga lu tax duma fa daanu man. non non waaw xam nga xam nga damay ñëw ci yeneen jabari Sofi falaay falaay falaay may ma rek ma terminer sama développement su ma jëlee yaa Khadija ma teg ko fële ah. damay jël yeneen condition yi mu doon takkee soxna. gis nga soxna euh, à part euh, yaa ay nga xam da ko doon seedeel ci cofeel ji mu am ci moom euh, yonent bi goreel na jaam takk ko yonant bi jël na une femme divorcée takk ko yonent bi jël na veuve takk ko boo xoolee conditions yi mu doon takkee soxna yëpp pour bañoon lii di am nii tey la nag te dinaa ci ñëwaat ci sama beneen développement yaa li muy wax nii ci fit rek la ko teg nee na ci fit rek waxul ci fit la ko teg ah non bii boo non ci xalaat bi la Eh, day déformé propos eh, xam nga lan ah, laa wax ne noonu la wax moo ne ci fit laa ko teg ci fit yow ragalal yàlla yow ragalal yàlla benn ragalal yàlla xam nga kay ragalal yàlla mooy wax li non non non xam nga kañ moo ne li may wax nii kat ci fit rek laa ko teg yaa ko wax léegi caméra yaa ngi tàkk seede yaa ngi ne xam nga kañ laa wax ci ci fit rek laa ko teg ak xel bi ma laajee lan nga yaakaar ni moo tax yonent bi non non non non sama fitu développement nag xam-xam laa la wax background ma laaj yow demal gëstu ci demal gëstu ji ci ci yaa rasulillah li ma la wax kenn du ko teggi kenn du ko teggi li ma mujjee wax teguma ko ci fit ci xam-xam laa ko teg yaa ko wax léegi eh, li mu expliqué li Messi bi merci Sophie merci laa wax laa teg fit bi